exemple bi la joxe léegi ma ma des foofu ba ba Valérie Pécresse defee primaire avec la droite ñoom ñu gagné primaire yi si saa si ba ñu defee sondage moom moo nekk deuxième après Macron. Mm-hmm. mais si diggante ba ku ne liggéey nga ba façonné l'opinion ba Mélenchon bu nekkoon si ginnaaw ñëw nekk troisième moom amul sax 5 Valérie Pécresse fii may wax ak yéen mu ngi am 5 millions d'euros de dette personnelle bu mu war a fay ndax dafa dafa pour mën a dugg campagne donc il revient aux hommes politiques de dire ni la bëgg a on est convaincu, convaincre ñaar nga convaincre ko soo est convaincre ñet nga convaincre ko mais il revient pas aux hommes politiques de dire ah imam de waxam di rafet na ñu ñëpp nañu ak imam wala ñun ñëpp nañu kii déedéet loolu c'est surfer sur la vague il faut que mu am démocratie il faut mu am pluralité hmm. ni la xalaatee kee né la xalaat ku ne hmm. respecté hmm. moromam lu mu est xam nga d'abord euh, on parle de yeewu askan bi man bamay wax yeewu askan bi amul woon il faut que ñu respecter chronologie man bamay wax y' a ce la coalition A4 je pense que tey léegi kenn weddeetul ne amoon na projet je pense que wa PDS wax nañ ko keneen wax nañ mm. amoon na projet entre PDS euh, PASTEF euh, taxawu mm. Dakar ak ak Khalifa. Mm-hmm. ak PUR. lolou léegi ñep xam nañ mais ba koy wax ñu bari xamuñu ko coalition A4 bobu bañ ko commencé di tabax bañ na léegi ñom dañ koy lancer mm-hmm. suñ ko lancer léegi ku mën a ñëw mën ñëw boobu laa ne d'accorduma parce que ñu si bëri si ñoom dama togg ak ñoom ñu wax mbirum nañ dajale opposition pour dem si local yi xam nga li tax ñaari opportunité la d'abord élection locale c'est près de 600 collectivités qui sont concernées donc ñëpp xaj nañ si waxtaane mais quel est le but parce que man loo gis dama am objectif absolument man objectif bu ma amoon si local yi du woon diw nekk maire parce que man politique bokk naa fi leader yu gën ndaw mais j'ai fait 18 ans en politique gis naa fi maire bu taxaw ne maa fi gën a aay lu mu et cetera wax wax ju garaaw ñu pare mu dem rejoindre pouvoir mhm. donc yooyu góndeetuñu mais lan moo nekkoon objectif bi objectif bi moo nekkoon en réalité nañu fexe ba am ben approche benn démarche dissuasive ba Macky Sall du fi taxaw. cas boobu est-ce que c'est pas similaire à Idrissa Seck. du mus a wax ay troisième mandat du ko wax parce que man loolu laa gëm na c'est le véritable combat parce que mbirum troisième mandat bi man fekkee naa troisième mandat Wade le président Wade dugg naa ci kaso donc xam naa ne troisième mandat mën na tar réew ma ne man ak ñeneen ak ñeneen occasion na locale yi ñu indi def benn résultat boo xam ne du ko xalaati duñ nekk fi sax di leem-leemal donc amoon na waxtaan yi am man ñi may tudd ñëpp waxtaan nañu ci loolu ba amone projet bu am entre Abdoul Mbaye ak Khalifa Sall ay tour laay cité pour ñu dajale opposition bi ñu def ay TDR de deux pages je suis précis ñu jékki-jékki mu am yenen initiative à côté je dis non hmm. waru len def lolu parce que le but ce n'est pas ku ne di jéem a xool nan lay tirer son épingle du jeu le but tay mo ñu dajale ñep pour loo xamantene intérêt général la ñu mën ko ñu mën ko dépasser loolu tax ma def sama sotti mais lolu bu muy am fekk Yewwi amul wàllu amul dara amul et j'ai dit deux choses Ben bi moy seen ñent yooyu ñeent ñi do leen ànd mënu leen ànd le passé en tout cas dina ma jaaxal l'histoire l'a démontré wax 2017 wax 2014 wax etc dernier dernière ñi jaar ni jaar effectivement mbir mi xar pdf dem mu def ñet ma ne leen soo ko defé dina ay coalition té lolu baaxul ci opposition bi effectivement

c'était pour leur dire que y a une responsabilité pour me des je prends Ousmane Sonko je m'a théorisé Ousmane Sonko c'est le le c'est le leader de l'opposition Quand ban leader de hmm. parce que man je le leader de l'opposition dans un régime présidentiel quand le chef de l'État est élu son second chef de l'opposition est le leader de l'opposition le second dem rejoindre le chef de l'État Mais le troisième moi, leader de l'opposition donc un leader de l'opposition il a un rôle à jouer mu xam ko mu je lui dis yo, da nga waroon def mhm. un patriarche comme Khalifa Sall nga xam ne ñun kum si woo ñu ñëw fekk si ko jox nañ ko respect rôle mooy loolu ku mel ne Karim Wade jiite parti boo xam parti symbole la muy PDS rôle mooy loolu moo tax ma désigner leen lii moo waroon nekk seen rôle mais léegi comme defuñu ko on passe sur autre chose yëral yëral waay yëral yëral xam nañu jotal yi yëral yëral